gars yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di euh, nuyu sénégalais yi ñuy topp à travers plateforme yi nga xam ne ñoom ñoo fi euh, tey nag euh, boo leen gisee jëmm ji nga xam ne moom la ñu toogal moom mooy Safia Diatta gars yi xam ko à travers ci plateforme yi nga xam ne ñoo ne ci Sénégal yëpp mais plus précisément fa li nga xam ne moom mooy D-Média mu dooree li nga xam ne moom mooy émission boobu di entourne dugg un peu partout ci Sénégal ba ñu tuddee woon ko sax daal Ndakaaru ndax duggoon na fépp foo xamante ne rek biir Dakar la waaye dugg na également fépp foo xamante ne ci biir sous région bu Sénégal la di animer également euh, euh, émission bi nga xam ne bokk na ci l'un des phares émission yi nga xam ne moom mooy daw foofu ci Sen TV di gis-gis euh, moom tey dañ toogal tey fii nga xam ne moom mooy rond bu Jet d'eau Sofia Diatta ñu ngi lay nuyu la nga nuyoog Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo la seetaan maa ngi leen di fay yéen ñëpp di leen ziar et merci d'être venu pas évident mais ñëw ngeen yow heure ndogu day xat te ñëw ngeen yéen ñëpp donc kontaan nañu bu baax a baax jërëjëf merci beaucoup projet bi si ñii la démarré parce que ñii euh, ñooy man man maay ñoom donc euh, euh, ci ñoom la démarré depuis des années ñu ngi koy def c'est pas la première fois dem nañ Albert Royer doxe fa di nga xam ne mooy ay don parce que foofu ku fa dem xam ne xale yaa ngi fa soxla ay soins te soins xaalis moo koy def donc dañ dajaloon xaalis bu xaw a takku yóbbu ko fa dimbali famille yi dem nañ aussi fi nga xam ne mooy prison des femmes daal di fay aussi ay denrées alimentaires ak lépp li nga xam ne ñoom dañ koo soxla foofu ren ñu ne vu que dëkk bi dafa xaw a dafa a dëgër mhm. nañu génn ñëw fii rond point Jet d'eau mhm. vu boo xam ne nit ñi dañ fiy ñëw lu bëri mhm. ñu daal di fi euh, distribuer yi nga xam ne mooy ay ay ay ndogu ndogu yoo xam ne gars yi dinañ ko mën a xéewaloo le temps que ñu yegg seen kër donc le but bi c'était de partager ak sénégalais yi parce que ñun ñun ñëpp benn lañu ñii samay sœur lañ samay frère lañu te fii tamit dañu fekk suñu frère fekk fi suñu ay sœur war nañ mën a génne as tuut ci li ñu am jox leen ñu daal di xéewalu loolu lañu am tey mm-hmm. euh, mu mel ni ñu ñëwee tey gis nañ fii vraiment jeunes yi topp nañ la ñoo xam ne vraiment boo leen magul euh, buñ la magul yow magoo leen euh, ngeen ànd di liggéey liggéey bi nan la demee ak voilà dajaloo bi nan la nan la demee ak nan nga fexe ba convaincre leen ñoom en tout cas ñu ñëw jàppale la ci li nga xam ne mooy projet bi ndax c'était pas facile en fait lii seen famille yaa amul jaru woon convaincu que ce soit parce que loo xam ne existé na depuis des années ñoom après peut-être dinañ ci ñëw mais ça existe depuis des années on est une famille dañu ànd ensemble les amis de Safia léegi chaque année comme je t'ai dit sànq dañuy organiser dara loo xam ne pour dimbali suñu ay ñooñ la donc noonu la ñëwee chaque année on se dit dañuy def dara cette année ñu ne dañuy def ndogu comme ñun ñëpp ñu d'accord ci et on a organisé ñu si et ça a na ngeen def ba collecté autant autant de somme pour mun a organiser ndogu bi ndax xaalis bi ci yow la jógee wala sa ami comme les amis de Sofia ñoom ñoo dajale xaalis bi pour mën a organiser ndogu bi euh, xaalis bi si ñun ñëpp la jógee si ñoom parce que dañu cotiser entre ñun man ak ñeneen ñi nga xam ne jàppale nañ ñu pour li am réussite parce que comme je di jàppal ma jàpp rek mooy tax ñu mën a organiser dara mu daal di antu parce que man rek mënuma ko def ñoom kese aussi mënuñu ko def donc on s'est on s'est on s'est entretenu jàpp ne lii la ñuy def lii la ñuy cotiser nii lañ koy defee ñoom tam ñu jàpp si et ñu ñu am somme bi ñu am def li ñu def et ça s'est passé comme ça Euh, même aussi dama amoon benn question ma ko bëggoon euh, ndax gis nañu également les célébrités ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les porteurs de voix euh, bu ñu demee ba Sénégalais yi xam ne dañuy sóobu ci li nga xam ne moom mooy social. Mm-hmm. social bi dafa am lu ci nekk loo xam te ñun xamuñu ko en tout cas wala lan mooy lan mooy vraiment solo bi nga xam ne moom mooy social bi nga def parce que boo xoolee ñenn ci yi animateurs yi wala boog porteurs de voix yi nga xam ne ñoo ngi Sénégal dañoo sóobu xam ne moom mooy social lan moo waral ngeen di sóobu ci social. voilà. d' man euh, du ma xaw a tuuti ak yow quand tu dis célébrité wala star ñoo koy def parce que Sénégal léegi koñ boo dem am na ñuy joxe dara. ni yi dañuy màjjal ci bopp ko ñi daal di joxe li nga xam ne moo di ndogu loolu gis nañ ko Sénégal partout donc ça montre que dañu nekk benn peuple boo xam ne on aime partager surtout ci mois bi nga xam ne mois de partage la muy ramadan bi donc ce qui loolu moo animé ñëpp te lu baax des koy roy bu fekkee am na kenn koo xam ne mu nekk célébrité ou pas def na ko nous loo xam ne ñu am ci dara wala ñu ñàkk ci am dara parce que ku nekk ak li la yëkkati def ko baax na en tout cas partagé ak ñi nga xam ne xamoo leen nii da doon nii def ñu romb la rek nga jox leen ndogu mu bett leen loolu euh, gëm naa ni kenn mënu ko fay donc célébrité yeeg ñi nga xam ne kenn xamu leen euh, je pense que y a derrière pour man y' a juste une chose c' est partage. mais jàppoon ci yéen lay gën a ci yéen a yombee parce que parfois da ngeen di compter autant de millions naan euh, diw joxe na à travers yéen seen profil euh, profil bi ngeen am Safia mi ngi feeñ télé d' accord mais am na benn omoro boo xam ne euh, kenn xamu ko siwul tojul fenn kooku bu collecté amaana mu bañ a a yomb ndax jàppoon ni ci yéen lay gën a ci yéen lay gën a abordable. ñun s'agissant de suñu ndogu bi mën naa ne defuñu ci propagande parce que mënoon nañu toog ci télé yi comme toog ne dañuy def lii dañuy def lële joxe leen xaalis waa joxe numéro de téléphone joxe lépp ne joxe leen ñu dugal ko ci ci ci benn compte di ko utiliser on n'a pas fait ça on l'a fait entre nous ñun ñi oui yàggul quoi bañ ko jàppee ñu ngi ko jàpp ci biir koor gi bañ ko jàppee on a eu peut-être euh, dix jours pour organiser ça en dix jours en dix jours on l'a organisé ma du sax quinze jours parce que on l'a dañu woor ba pare soog a décidé ne dañoo bëgg a def dara après ñu cotiser entre nous donc si mënoon nañ ko propagande comme je l'ai dit parce que maa ngi ci télé mënoon naa wax sama sama dama bëgg a def lii est que mën ngeen ma may publicité su ma du ma ko bañal mm. su ma ko defalee ñu collecté ay millions mais li gën a li gën a yomb mooy nga def loo xam ne si xol yi lay jóge ci poche yi lay jóge et doo forcer kenn parce que man je me dis tout le temps loolu laa su ma su fekkee ciblé nañ Matar ñu ne Matar nañu dimbali ñu woo ko benn yoon ñu ne ko Matar dañu bëggoon jàpp ci ñaari yoon réagirul on laisse tomber parce que xam nga lu tax dëkk bi si ñëpp la taar muy man di keneen ak keneen ci ñëpp la metti ki nga ko foog c'est pas toujours évident que moom mu génne loolu def ko donc balaa ngay xalaat ci kenn xalaatal si yow ak ñi ànd ak yow ba pare li ngeen mu àttan ngeen def ko parce que dañuy gis tout le nit ñi di di di solal nit ñi ci yenn affaires yi soo mënul rek bàyyi boo demee bay séddale ndog boo mënee defal li nga àttan li nga àttanul bàyyi ko donc a on l'a fait ensemble forcé wuñu kenn demuñu kër kenn et am na c'est vrai benn wala ñaari ñu dimbali mais ça s'arrête là. comme ndax beneen question bon d'habitude dañuy wax célébrité yi dañuy wor damay ñëw nag rejoindre la sa émission euh, célébrité yi dañuy woor wala célébrité yi ànd ak ñoom benn ñaar ñu wan la ginnaaw ndax aussi tamit euh, yow mii en en personne oui. Euh, parce que si on voit le nom de votre association c'est pas les amis de Sofia lañ bind. kon ça veut dire que y a une complicité entre vous-même ndax yow ban affinité nga am ak ñii nga xam ne ñooy les amis de Sofia. je pense que la question ñi ko war a tontu ñu ngi fi toog parce que boo nee célébrité dañuy war je pense que ñoom ils sont mieux placés pour répondre à cette question parce que li ma si mën a wax daal mooy. man dama leen considérer comme samay frères comme samay sœurs euh, les amis de Safia on aurait dû mettre les frères de Safia en tout pour tout quoi pour man loolu la waroon tuddee mais question bi dama la koy bàyyi soo leen ko laajee ñoom ils pourront répondre à ça parce que yàgg nañu am na ci ñoo xam ne maa ngi ñoom c'est bien avant que may ñëw des médias donc ça fait très longtemps yàgg na ëpp na 10 ans ñu ngi ak ñu ak man ba léegi ah je pense que war bu doon am ah si li ma yaakaar am na bu yàgg mais bon euh, day nekk relation bu sincère c'est sincère. Quand c'est sincère, ça dure. Quand c'est pas sincère, ça ne dure pas. C'est-à-dire quand tu viens pour un but bien déterminé, da ngay ñëw pour social ak pour bëgg Safia boo fi nekkee te bëggoo ko doo ko supporter ndax man dama bëri caprice déjà man mun naa tooñ bëri naa ay jàpp soo ma bëggul munoo nekk ak man soo ma bëggul munoo nekk ak man donc ñi la bëgg rek ñoo mën a nekk en plus yow nga rendre leen la monnaie parce que comme ni may waxee ni may xoolee sama sœur bi ma bokk ak ndey ak baay ñoom noonu laa leen di xoolee parce que ils sont devenus effectivement des frères pour man parce que ay nit la yoo xam ne on peut partager beaucoup de choses au-delà de li ñuy lii ñuy def ni on partage ñu ay problèmes on partage suñu ay événements mariage bu amee ñu ci bëri dañuy dem ngénte bu amee même chose c'est devenu une famille une famille on l'aime ou on l'aime c'est comme ça ah, waraguma mais yàlla rek moom moo xam nit rek laa voilà donc man euh, juste euh, dernière question bi euh, mooy activité bi ndax ci ramadan bi kese la yem ndax lan mooy seen perspective par rapport ak li nga xam ne mooy initiative bi ngeen di jël. on est un groupe social on va dire si social rek la ñuy la la ñuy la liggéey déjà instant bii nii groupe bi dañu def benn si je peux me permettre le président il est là si ñëw dañu nekk benn groupe boo xam ne on est tout le temps ci social. déjà dañu am caisse boo xam ne à chaque fois dañ ciy génne jël Ousmane wala Ami. wala Penda bi nga xam ne peut-être bëgg na def benn activité mais mënu ko dañuy jël ci kees bi jox ko mu dem liggéey su liggéeyee su ñëwee mu fay ñu. sans intérêt mais par exemple tey nga bëgg a dugal ginaar on te la some pour nga dugal ginaar soo dugalee ginaar jaay delloo ñu suñu xaalis ñu jox sa morom donc on est tout le temps dans le social. parce que tout le temps ñu ngi jéema a dimbalante entre ñun ba ku ci nekk ci ñun soo amul woon ci loo jàpp nga jàpp ci soo amul woon looy def nga yëngu ci dara parce que loolu rek moo am solo ndax ñun ay jeunes lañu dañoo war a liggéey. donc waruñu donc man mënuma xëy di liggéey keneen ak keneen toog di liggéey am ñu nekk ci groupe bi te amuñu lu ñu jàpp te duñ leen duñ leen duñ leen jàppale amul sens te xaalis dafay tëdd te du dem donc on on tout le temps te tout le temps dañuy jéem même bu dul entre ñun génn def leneen donc social bi c'est tous les jours chez mën naa ñaan benn rek mburu euh, mu jeex ndax euh, dañoo gis actuellement <laughs> réew mi dafa jax fu mu toll nii euh, mënuñ ci ñàkk ñëw vraiment ndax porteur de voix nga réew mi jax na ah jafe-jafe yi bëri na taal taal yi bëri na parce que bu jàggul dara rek la booy Cameroun yi fépp ñoom it taal violence yi bëri yow en tant que porteur de voix en tant que sœur en tant que maman en tant que vraiment nit koo xamante ni day wax nit ñi di ko déglu même bu dee ñaari nit sax dañuy topp tey message ngay lancer jeunesse nga xam ne tey ñu ngi révolté wu ngi ñu ngi taal ngi fépp c'est un message dëkk la dëkk dëkk jàmm la ñu nekk comme on a l'habitude de le dire boo seetee lu ñu taal taal taal taal bu ñu toogaatee après nit ñi seen xel dafay dellusi si parce que dañu nekk ñoo xam ne dañu màgg juddu màgg ci li nga xam ne mooy paix donc je pense que mënuñu nekk ci leneen on peut mën nañu tàngal et tout parce que des fois il le faut parce que ñun dañ nekk ci peuple bu nga xam ne aussi dañ nekk peuple boo xam tamit duñu toog di nangu yu bëri ñu ñu koy def mais day metti rek mais ci jàmm la ñuy nekk d'accord mu ngeen mayoon benn rek mu ndaw. parce que gars yi d'habitude dañuy faral di réeral politique bi. Uh-huh. ak euh, en fait euh, la vie la vie la vie interne des des de la population des uh-huh. Sénégalais. Uh-huh. loolu ban appréciation nga ci def. awma ci appréciation. parce que c'est sa vie c'est sa décision. ku nekk am nga fii am na ñu fi faral Macky Sall am na ñu fi faral Sonko. et moi je suis la personne bu nga xam ne ñoom maa leen di yëkkati. du ma ne kii laa faral wala kii mais tout au fond moo xam naa li may def donc nañu respecté ku ci nekk gëm-gëmam ku ci nekk li mu bëgg mu nekk ci parce que tamit on est indépendant on n'a pas le droit di di di xëcc nit ñi ci dara ku ci nekk day tànn fi nga neex en plus groupe bi on est apolitique donc ça va wax dëgg yàlla sama yoon nekk ah c'est un message de paix nañuy nekk si jàmm rek suñu nekkee si jàmm nañ mën a liggéey suñ nekkee ci jàmm nañ mën a avancer c'est tout quel que soit alpha nañu liggéey am xaalis mën a toppatoo suñu bopp toppatoo suñu ay entreprise toppatoo suñu famille voilà donc man moom juste une dernière question rek <laughs> voilà ngeen baam rek ngeen baam waxat moom waxat waxat day wax rek voilà donc euh, nga nekk ci benn ci benn groupe de groupe de groupe de média boo xam ne wala groupe de presse boo xam ne euh, groupe bu ñu bàyyi xel la ci Sénégal nga xam ne fan yi passé amoon na ay euh, vraiment ay ay ñu nekkoon euh, mooy ñenn ci seen ay naata ci seen ay naataango ci ay problème am ñoo xam te ne mettre nañ au frigo yow nga bokk ci préfet yi nga xam ne Bougane Gueye daf leen fonk respecté jox nga dem fenn est-ce Sophie Sofia euh, euh, relation ak euh, DTV des médias ak Sofia lan la relation boobu noonu. man ba may ñëw des média mën naa ne xaw ma woon dara j'ai appris beaucoup de choses là-bas disons j'ai lu ma xam yëpp fa xamee parce que ba may ñëw je faisais de la radio foofu laa mës a defee télé donc ils m'ont ñoom ñoo ma jàngal li ma mën d'accord te yàlla moom mooy tudd nit nekk fenn heure bàyyi jot mu bàyyi. waaw yàlla moo xam. yàlla moo xam je dirais pas damay bàyyi je dirais pas ma bàyyi mais li si kanam daal yàlla moo ko xam l'essentiel instant bi maa ngi liggéey je suis bien ici maa ngi def li ma war maa ngi liggéey lu ma mën apporter ci entreprise bi naa ko apporter parce que damay liggéey ñu may fay léegi li si des nag moom wax dëgg yàlla xaw ma je sais pas léegi <laughs> mais di leen remercier yéen parce que euh, vous êtes venus ba pare euh, kenn wowu leen déjà da ngeen ñëwal seen bopp c'est déjà quelque chose de gentil parce que loolu tamit seen apport la ci suñu ku ci nekk ci li li ngay liggéey Euh, ci ngay ci ngay jàppale say say ñooñ je remercie aussi à les amis de Safia dañoo bëri wax nag ñun norme naturellement nii lan mel ni ma mel ñoom noonu lan mel léegi je remercie au-delà de sama famille les amis de Safia au-delà de Safia il y a d'autres personnes yi nga xam ne dañoo ñëw yuy si ma si sama si sama journée bi nga xam ne dama ko sama samay sœur ñu ngi leen remercier du ma lim mais ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier ñëw nañ ci distribution bi et tout et euh, je remercie ñii ni toog mënuma lim ils son ils sont nombreux ñi fi nekk ak ñi fi nekkul parce que du ñëpp ñoo am ñoo am temps am na ñoo xam ne nekkuñu sur Dakar et tout mais on remercie tout le monde ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ pour la réussite de cette journée defaluñ ma ko man defaluñ ko seen bopp dañ koy def te yàlla rek tax parce que ñi ñu fi jox ndogu ñëpp on les connaît pas xam nga yëkkati jox sa famille ñoo xam neex na mais yëkkati jox ñoo xam ne xamoo leen c'est déjà quelque chose léegi le reste dama koy bàyyi ak euh, Awa ak Laay ñoom ñu wax ñu répondre ci question bi sama ji posé sànq et merci encore merci d'être parta euh, d'être passé yàlla nañ leen yàlla defal jàmm père mu ngi fi maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu Benoît maa ngi nuyu Prosper Sophie euh, toute l'équipe de D-Média di remercier Bougane parce que Safia tey bu nekke Safia moom la parce que xam nga ku xamul dara si métier ñëw nga may ko chance am ne ko mën nga ñëw def télé muy jàng parce que mine de rien j'ai fait dix ans là ba ma fay ñëw maa ngi jàng xale bu ndaw laa ba léegi mu ngi nii fonde naa sama famille et il a toujours été là il m'a toujours soutenu ci lu ma bëgg suba ba ngoon mi ngi si mi ngi siy dox sa vient répondre à ta question tout à l'heure parce que booy liggéey fenn ñu bàyyi la à l'aise bàyyi la xel boo nekkul ci yoon ñu ne la nekkoo ci yoon boo nekkee ci lu baax ñu ne la yaa ngi ci lu baax da ngay sant yàlla parce que am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey fenn te kenn bàyyiwu leen xel mm-hmm. naaw donc maa ngi koy remercier bu baax di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi foofu ci biir entreprise des médias merci beaucoup